di def la muy def ba pare bu bu jógee di woote nee na ma nag naa dindi photo Serigne Abdou Karim bi parce que ay waa këram duñ ko nawloo buñ ko gisee dana danañu ko xeeb li mu wax ci Mamy Cobra wax ko ci laay fu sokk yépp weddi na ko waxaat leneen barke Serigne Babacar si maa ngi téye lépp amee nee naa ko maa gën a doot soko te ma Mamy Cobra xam na lépp ndax yónnee naa ko ko pendew gise pendew gise dafa def erreur nee na xamul ne woon mi ngi woon en direct def na mal communication pendo nag sama nit la ñu seq lu ne mais tamit wax na moom it lu rëy tey laay fu tey bi bu ci yàlla jàppul ak yonent bi na doy waar de mais aji maa ngi xool daal ndax dama koy yërëmam déet parce que mi ngi jooy barki Serigne Babacar Sy am na lu ko metti lépp preuve la ma téye ko preuve yëpp laa téye yemul ci man de déedéet dama koo jël ma envoyé ko mami Cobra mu déggaat lu bees pour mën a wax léegi nag ma mi mooy choisir tey ci live bi aji maas mën naa dinaa maa ngi xool Euh, Pendo Guissé xam nga ndax nag ay bal lan wax parce que Adji Mass bu ne Mamy Cobra dafa foo parce que da daan ñëw sama kër est-ce que xam ngeen lan moo tax Mamy Cobra daan dem kër Adji Mass laaju leen lool de est-ce que xam ngeen lan moo ko fa daan indi mu bàyyi Thiès ñëw beneen bi mu ne da koo mere ndax dafa ubbi butigam yëgal ko ñëpp mu yëgal ko ñëwul est ce que ba mami Cobra di ubbi boutique am ñëw nga ba mu la ko yëgalee est ce que ba mami xawlee wax la ko Adji Mass ñëw nga li laxasu ci biir moo bëri lépp kenn mënu koo wax appel yi bëri na mi ngi toj 23 heures rek ma leeral tuuti incha allah. alors Adji Mass ñaan nga ma ñaan nga ma maa ngi xool nag nu ma def nag waa lu tax ngay woote rek. non non may doyewaat. xam nga xam ah, yow déglu tuuti moom xaaral xaaral mooy woote ni rek dafa tiit ak seen waa kër